Heavy Bass.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 nag nee ñu mu ngi xew weekend bi weesu li ko waral nag mooy ay baykat ñoo doon sàmm seeni jur li ko waral nag mooy ay sàmmkat ñoo doon sàmm seeni jur bi ñu egsi ba ci tooli baykat yi bëgg a jaarale seeni jur ci tooli baykat yi baykat yi dal di jóg dal di opposé waaw waaw baykat yi yemuñu ak ñoom foofu ne xanaa beneen yoon ngeen di jël kay waaye du jël seeni jur jaarale ko ci suñuy tool te muy dëgg bi loolu amee nag ci la dañuy jóg ci boor bu ne sàmmkat yi dal di jàmmarloo ak baykat yi dal di ñoom ba cor ci kenn jaasi mu jële ci ay blessure yu graaw cëy mim réew bi loolu amee nag bi villageois ya baykat yi dëkk yëgee nouvelle bi ni am na ci ay sàmmkat yu songu seeni ñooñ ba cor ci kenn jaasi mu jële ci ay blessure yu graaw ci la waa village ba yépp dal di mere ba futtu tàmbalee organiser wu na ngir fayu xëpp naa def ma ne village u Touba Malem ba ca Kaffrine nga xam ne béykat yi fa ñu bàyyee ko kenn desul la wax waa dëkk ba yépp mam ngir dem fayul seen doom ba ñu ñëwee na fekk nañu ñaari sàmmkat ya def musiba ba dal di dem waaye nag ci yeneeni sàmmkat la ñu dal dal leen sippi mer ay complice ngeen dal di jàmmarloog seen diggante jaasi yak nag góob ya jóg ba ñu fàtti benn sàmmkat ci ñaari côté yi nee ñu tamit bari na ay blessure yu grave ca Koungheul tamit lu ni mel fa xew sàmmkat yi jàmmarloo fa ak baykat yi xeexoo ak ñoom foofa it benn bakkan dal di fay <laughs> ma ne baykat yeeg sàmmkat yeeg bokk suuf si te mënuñoo tolérante ci seeni suuf moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a grave corona laa wax la xew ca Kafountine romb na doy waar ab soxna bu ëmb la ñu agressé ko ay paaka ba mu jaare fa ñàkk bakkanam mim réew ca Kafountine googu nag ñetti weer ci ginnaaw agressé woon nañ fa benn jigéen dal di koy dóor semiñ ba mu jaare fa ñàkk ba kanam ca même Kafountine googu la fa xewati gën doy waar ab soxna buy woo ci Assise dëkk ca quartier Kafakunda jëkkër ji di liggéeye ca Gàmbi la ab agresseur dugg ci néegam fekk ko mu tëdd ci kaw moo ki ñaari doomam jamate ko ay paaka ci kanamu ñaari doomam ba mu jaare fa ñàkk bakkanam waay yéen réew mi waa ji bi mu ni mel may def daaw fi mu ne ñu ngi koy wër ma ne ko doo rëcc de li ci gën a ti doy waar na ndaw si bi ñu jëlee koor bi ba caytu ko xool xool ci la ñu gis ne ndekete ndaw si dafa amboon ma ne waa ñi ñaari bakkan nga rey ba nga yegg ci yàlla ndeysaan ndaw si nee nañu àjjuma ji weesu rek la mujjee gise ak borom këram ndax borom këram dafa jóge woon ca Gàmbi muy liggéeyee ñëw Sénégal ngir paase fi tabaski bi ndekete woo borom këram bu mu delloo dana am ab samba booy bu bon buñ ko jaaree ginnaaw faat jabaram ba dootu ko tegati bët ba mukk waay waay waay waay waay réew mi li fi am kenn xamul lu mu doon fii ku faatul bakkan tëre luñ la ay bal ba nga dee billaay réew mi rey day bëri ku faat bakkan dañ laa war a jàpp tëral dóor la ay bal ba nga dee bu fekkee yaa ko tey yomb na waay mu doon seen xibaaru buzz dig daje beneen yoon ci yeneen xibaaru buzz